rabbi ahuuzu bika min hamazati shayatin wa ahuuzu bika rabbi an yaxduruun la hawla wala quwwata illa billahi alaliyu alazim ya hayyu ya qayyumu ya zal jalali wal ikram assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ngi nuyu mbokk jullit yëpp nuyu jullit di nuyoo bu sell te ñaan suñu borom subhaanahu wa tabaraka wa taala suñuy kàddu fekk leen ci jàmm mu mel ni dañuy desiwaat ci suñu jotaay yi ñu baaxoo def jotaayu majalis ñu nekkoon ci téere bii ñuy wax tasawadu sixaar tasawadu sixaar nag mel na ni jàngale woon nañu sunu leçon yu mujj muy leçon yi jëm ci wàllu gëm yàlla ak lan mooy dëgg-dëgg gëm yàlla ci wàllu tawxiid ak yenn ci melooy suñ borom yi subhaanahu wa taala muy melo yu mat di melo yu kawe ak yaa ci aju yëpp kon mu mel ni bu ñu génnee ci bunt boobu mu buntu gëm yàlla dañuy tàbbi ci buntu bi nga xamante ni dafay jàngale lan mooy gëm malaayika yi ni nga xamee ne noonu la ko suñu borom subhaanahu wa toftalee ci alquran kullun naamana billahi wa malaikatihi kon nag noonu la ko sëriñ bi toftalee rek mooy ginnaaw bu mu amee bi mu andee gëm yàlla ak li ci aju daf ciy toftal lan mooy gëm malaayika ak li ci aju kon moo tax mu ne faslun lii ab dog la fil malaayikati ci malaayika yi alayhimu yàlla na nekk ci ñoom asalaatu dolli teral wasalaamu ak dolli ak mucc amal malaayikatu ndaal malaayika yi fal imaanu gëm ga bihim ci ñoom huwa moom ak tasdiixu mooy dëggal ga wal ixaanu ak wóolu ga <clears throat> bi annahum naka ñoom malaayika yi laa sàkka déet benn sikk sàkka bi naa ñu am lañu suma max suumu naa topp ñu ñu musal lañu mina zunubi ci ay bàkkaar wa annahum naka ñoom malaayika yi mutahharuuna ñu ñu laabal lañ laa naa du ñu xayta wala yabuluuna du ñu beewal xayta nag mooy dem wa nag bu dee beewal mooy tur ndox mooy saw laysat malaa'ikul ilaahi déet malaayika yàlla yi yaakuluuna ñuy lekk alayhimu yàlla na di nekk ci ñoom assalaamu dolli wóolu laysu déet ñoom yasrabuuna ñuy naan bal li fi nekk hum ñoom ay jaam lañu mukramuuna ñu ñu teral sarmada ba faw wal kullu képp minhum ci ñoom sa yax si duñu moy asamada kilifa ga mooy yàlla mi nga xamante ni moom lañ aajowoo ci bépp ndimbal ak bépp yitte wal kullu képp ci ñoom yafaxalu lay def allazi la nga xam ne xat umira digal na leen digaleef na ci moom waxaadu wamet na busaraa mbégte bi am na ci kulte lii ñeel ma wa annahum naka ñoom xalaqahum bind na leen min nuuri rabbihim ci leerug seen borom albaaxi yàlla mi nga xam ni mooy aji des bilaa takk diiri ci lu nëx nëx tasbiixu rabbihim sàbbal seen borom huwa moom asraabu mooy nand taqdiisu taqdiisuhu seenu sellal attaxaamu mooy ñam wa laa tartaabu déet sikk sàkka kon kat gëm malaayka yi moom mooy na gëm ne malaayka yi ay jaam lañ muy jaami suñu borom subhaanahu wa taala muy jaam yu sell yoo xam te ni kat suñu borom musal na leen ci lépp luy <clears throat> moy ak lépp luy ay bàkkaar ak lépp lu taq muy sobeek yu mel noonu ndax duñ dem wanag ak lu xeetoog ñoom ak lu xeetoog loolu kon ñu suñ borom laabal lañ nga xam ne kon malaayka yi jaam la yoo xam ne suñu borom daf leen waaye ñoom kat suñu borom daf leen a bind ci ak leeram kon suñu borom leen bind ci ak leeram wuute ak doomu aadama mi nga xam te ne suñ borom daf ko bind ci suufu ban kon malaayika yi suñu boom daf leen bind ci ak leeram malaayika yooyu nag duñu lekk ñu naan boo doon wax nag seenu lekk ak seenu naan nag mën ngaa wax ne sellal gi ñuy sellal seen borom mooy nekk seenu ñam mooy nekk seenu lekk boo doon wax seenu naan mën ngaa wax ne sàbbal gi ñuy seen borom mooy nekk seenu naan waaye ñoom tamit malaayika yi lépp lu ñuy jëf rek ci ndigalul yàlla lay aju duñ def lenn loo xam te ni suñu borom digalul leen ko lu leen lu leen yàlla suñu borom digal rek la ñuy def duñ mooy yàlla mukk waaye nag suñ boroom ci boppam moo leen bindee noonu nga xam ne mënuñoo mooy yàlla buñ ko bëggoon sax duñ ko man te jaamu yàlla googu ñu jaamu suñu borom it na jàpp ne amul benn coono ci ñoom amul benn coono ci ñoom ndax suñu borom moo leen bindee noonu nekkul seen ngóor waaye. lu suñu borom dogal ci ñoom def coobareem ci noonu ci ñoom ngir ñu mel noonu kon na nga jàpp ne kon jaamu yàlla géeg ñàkk mooy géeg yëpp benn du métti ci ñoom lu yomb ci ñoom lay doon ni nga xamee nit ki noonu lay noyyee tu yëg ne mi ngi noyyi mën ngaa jàpp ne jaamu yàlla gi noonu sax lay mel ci ñoom wala lu ko gën a neex waaye na nga xam ne kat malaayika yi kat ay jaamu lañ yoo xam te jaamu suñu borom lañ waaye du ñu góor du ñu jigéen ni nga xamee noonu la suñu suñu borom indee ci alquranul karim ndax kat bu ñu xoolee histoire lu weer ci ginnaaw ca jamono yonent bi sallallahu alayhi lu njëkk muy ñëw naar yi nekkan nga xam ne dañ daan jaamu ay xërëm dañ daan jaamu ay malaayka di wax naan malaayka yi kat ay yi suñu borom lañ yu jigéen loolu nag dafay mel ni luy tuutal suñu borom ndax suñu borom boo demee ba di ko wutal doom wala ak neen rek kon mel na yaa ngi koy tuutal ba pare nag di wax naan malaayika yi ay doom yi suñu borom yu jigéen lañ ndax jamono jooju kat ñoom fonkuñu woon jigéen ndax dañoo jàppe woon jigéen loo xam te ni daal koo xam te ni daal euh, da lay tegee coona amul njariñ daal lañ jàppe woon jigéen ba taxaw na ci jamono jooju sax ku ci am doom jigéen da nga koy rey ndax di wax ne jigéen moom amul njëriñ lu njëkk yonent bi sallallahu alayhi wasallam di yegsi ci jamono kon nag ñoom bëgguñu doom bu jigéen dafay di ko bëggale yàlla nag moo tax nag suñu boom leeral nag lan mooy malaayika ci alxuraan kon nag malaayika moom kon da ngay jàpp ne gëm ko dangay gëm ne malaayika am na gëm ne ay jaami suñu borom lañ jaam yu tedd yoo xam ne suñu borom moo leen teral du ñu lekk duñu naan du ñu moy yàlla te ndigalu yàlla rek la ñuy jëfe am na bayit yu muy jeexalee nag yoo xam ne dafay wax ne comme lu mel ni xaadu bil am ni wali xaadu bil am ni bu sara nga xam ne daneen suñu borom kat def na malaayka yi ci jëmmi boppam ñuy womat lépp luy mbégte ak kóolute di ma ko andil man Sëriñ Tuubaa loolu ay jeexalu bayitam lay doon ndax fi mu tolloon ci suñu borom la subhaanahu wa taala moo tax kon daal kuy gëm malaayka yi mën ngaa gëm ci ñoom daal comme lii mu indi fii muy gëm gu wóor war gëm malaayika yëpp nag waaye nag am na malaayika yoo xam te ni moom fukk lañu yoo xam dañ leen a lim nit ñi nit ku nekk war na leen a ràññee xàmme leen fukk yooyu mooy mikail jibril israfil ashrail raqib ak xatib ak munkar ak nakir ak ridwaan ak malik muy fukk yoo xam ku nekk war na leen a xam moom fukk yooyu ñi ci des nag nga gëm ne nag ay malaayika am nañ rek ñeneen ñu bokkut ak ñooñu waaye nga gëm ne malaayika yi am nañ rek kon dina doy kon daal loolu mooy bunt bi nga xam te ni mooy buntu bi jàngale gëm malaayika yi ak li aju ci ñoom kon mu mel ni foofu la yemale bunt boobu kon daf ciy teg bunt bi nga xam te ni mooy jàngale lan mooy téere yi suñu bam wàcce ci yonente yi faslun fii kutubi samawiyya kon ni ko suñu borom andi woon ci alxuraan kon nag dañuy yamale fii kàddu yi di wax na lépp lu fi jub ci suñu borom la lu fi dëng ci suñu jëm yu xeebu yi la di ñaan yàlla nañu suñu borom defal dégg ak topp yàlla nañu suñu borom def dëggi dëggi jullit yàlla nañu suñu borom musal ci lépp lu yàq ab xolub jullit yàlla nañu suñu borom defal nuuru daaray ni yàlla nañu suñu boroom musal ci xolub kiñaan ak xolub rëy ak xolub ngistal ak lépp ci lu aju ci lu suñu borom gërëmut yàlla nañu suñu borom may wërsëg bu bari te barkeel moom mi nga xam te ni mooy aji wërsëgale yàlla mi nga xam te ni mooy aji dundale di aji raye yàlla nañu may dund gu yaatu gu barkeel gu nekk nag dundug lislaam yàlla nañ suñu boom defal li gën ci ñun te defal ko li ñu bëgg in uridu ila al islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah wa salaamu alaykum wa wa barakatuh sëriñ bi doon sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal